maire bi fi nekk bon dafa am këyit yoo xamante ni daf ko génnee recensement bu ñu doon def fii ñu def ko ba pare ñoom ñu andiwaat ñeneen ñu def recensement bi ñu xamal ne recensement bi ngeen def baaxul ñu weddi ko ni di baax na tey jii mu ngi ne tey preuve yaa ngi nii dem nañu urbanisme dem cadastre dem dem si préfet dem yëpp bind nañ leen moo tax tey nag ñu taxaw tey pour demander pour population ñëpp dégguñu état dégguñu Macky Sall ñu ngi koy euh, interpellé mu wax si see Issa Sall mi nga xamante ni dafa bëgg a jël këru néew gi doole jox ko borom borom barke am na koo xamante ni dèjà kay yi nga gis ñu marqué ko yëpp moom de moom dafa yor dafa yor otoom rek ñëw di marqué boo ko wooyee mu ni dañ maa jaay damay jaayaat ci kër yi néew gi doole yoo xam ne am nañu at am nañu lépp ba pare tey boo xoolee tey 86 li ñu gën a jaaxal sax mooy benn at mu def ci ñetti kër wala ñaari kër tey bii 86 mu ngi nii 86 B et 29 C mu def ko benn at kooku kooku borom kër gaa nekk nii mu ngi toog kayita kayita kayita moom te am na baay am na lépp kon dèjà loolu affaire ñun bu ñu ko jiwee mooy affaire sàcc ñi nga xamante ne am nañu at mu bàyyil seen kër da ngay gis kër goo xam ko tabax ba mu rasé ba terrasse ko bu mu ñëw andi kooku yor këyitam waa ji day ñëw daal di fëgg daal ne daal ne c'est Issa jox kër mais si yan anam si yan condition la ko joxee loolu la ñuy demandé loolu la ñuy interpellé le président de la république le ministre de la justice ñu taxaw jàppale ñu si ñi nga xamante ni néegu doole lañu ñu ngi fi amuñu doole mën ñoo tabax mu mu mu na leen delloo seen terrain yi nga xam ne moom la ñu moom loolu la ñu soxla waaw na leen delloo terrain jàmbur yi nga xam ne moom la ñu moom parce que ay néegu doole lañu amuñu lu ñu tabaxee amuñu lu ñu fayee dañuy di di di ñeen ñi sàkke lañ def ñeen lu lañ def ñii marché la ñuy xëy bu ñu xëyee fi tataay lañ jël yóbbu marché amuñu courant amuñu ndox amuñu dara jéemul suñu jéemul jéemul si dëkk bi dara lu dul lu dul ñëw jël kër jàmbur di ko jaay Euh, am na am na ku ne mairie ku ñuy wax certain Mamadou Diop mooy moom moom moom mooy moom mooy moo ko représenté dafa see Issa soo demee danaan la bàyyi sa këyit après ñu xool te mu jël këyit dem signé ñu dem signé ko dem jox ko jàmbur. am nañu li si manque at yaa ngi nii normal am nañu at normal fay fay fay at yaa ngi nii depuis ñi nga am 2013 2017 2021 ba ba ba 2019 ñëpp am nañu ay at normal moom mu ñëw rek daal di ay at ñu ko signé le 27 février bi passé lay dem signé ay at ay at jàmbur. kër jàmbur dafay def ay at ñëw jox dañuy interpellé non ñoom li ñu wax mooy demal Descos demal mairie boo demee mairie ñu ni voilà kër bee ko nangu ñun ko si yenn anam kër gi ñu tabax ba terrasse ko pare maire bi nangu mu ne waa maire bee ko jël rek bàyyi leen fi après seen kayit ñu kii may leen loolu ñu ne kër yi ñoo ko moom ñoom ñoo jënd ni ñoo ko jënd seen xaalis ba ñenn ñenn yi dafa am yoo xamante ni dafa am yoo xam ne Abdoulaye Wade moo ko jël jëlee leen bay dëkk mu nekk titre foncier ñu ànd leen fii jënd loolu man dem naa ma dikk ñaar wax na ni fii amuñu droit fay kayit kon tey jii ñu ngi ñuy fayloo kayit yóbbu ñu cent mille mutation ba deux cent mille te maire bi fi nekkoon vaut mieux que moom cinquante mille loon def xoolal maire bi tey mu yóbbu ñu ba deux cent mille loolu tegul seen am ñu néew loolu am ñu fay képp ki nga xamante nii jox na la at yu bees yi le vingt sept février nga ñëw fii kër yooyu faloo loo fi gis xam ne loolu la ñu ngi fas yéene taxaw pour jàkkaarloog ñoom du ñu rek waa na ko ku mën a doon ku ñu jox kër nga ñëw fi dañ jàkkaarloog yow kooku moom ku fi ñëw doo fi tabax loolu moom ba ñu si tey ba ñu si ëllëg xanaa dañuy doon néew ñu ngi wax le président la république nag mu wax mu woo sa état parce que li moo taxoon ñu ko fii élection yi passé bu doon màgg tey day ñaaw kon bu ñu koy ñaan mu andi délégation spéciale mu andi délégation spéciale Mbour parce que sinon bu élection bu dañ koy gagné parce que Maguette Sène même sax bu ñu joxoon Maguette sax mu ñu signal bu sax moo ñu gën a say isa parce que ñii dañoo xiif ànd ak waa àndam xam lan moo xew falo mm-hmm. lu fi xew ma mooy mm-hmm. dafa am ay néew di doole yore seen kër ñenn ñi sàkket nañ ko def ñenn ñi taaba taaba nañ seen i fukki dërëm ak seen i ba mm-hmm. commencé koo tabax ay nit di jóge fële ci àll ba kenn xamul fu ñu jógee daal di ñëw andi seen i këyit ne monsieur le maire Cheikh Issa moo leen jox ay këyit kër gii ñu dëkk ñoom te tabax ko ñoom ñoo ko moom loolu moom moo xew biir fii falox fi ñu taxaw nii ñi ngeen gis ñii ñëpp ay victime nañ nan nga mun a amee sa kër ñu jox la ko nga am ay papier yu leer nañ fay sa xaalis lépp loo xam ne ni yoon may na la pour nga yore ay papier yu leer si kër. am nga ko un bon jour nga xëy nit andi camion suufam sotti ko sa biir kër ne man maa ko moom. ñuy wax mu jaay la doole yóbbu la police. léegi nag dañuy laajte ban Sénégal lañ nekk daam ñu am doole am ñu amul doole su nekkoon suuf si tey dañ koo jël te dañ koy joxaat askan bi.

muy maire muy waa impôt et domaine muy tribunal ñoom ñëpp ñun waa Mbour gi adressé leen lettre pour wax leen ni que dañoo bëggoon a waxtaan ak yéen ci problème bii kon c'est-à-dire kon solution war na mën a commencer foofu mhm. mais bëgguñu parce que xam nañ li ñu def mënuñoo jël terrain jàmbur yi di ko sàcc nag sàcc sàcc nañ koy tuddee sàcc aussi sàcc nañ koy wooyee dama ne Cheikh Issa su buggee jàmm kase fii si biir Mbour ak si terrain ak si waa population folo na leen bàyyee seen terrain yi parce que ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo moom seen terrain na leen ko bàyyi dama ne benn population bu mu nangu bu mu nangu keneen di jóge si àll ba fekk la sa biir kër nga dëkk fi depuis 2019 wala yaa xam ba heure nga fi dëkk mu jógee fële daal di ñëw fekk la fi nekk kër gi man maa ko moom parce que Cheikh Issa jox këyit population bi hmm. nañu organiser wu képp ku ñu gis mu jógee feneen si àll ba ñëw fi ñu ne ko kër gi moom moo ko dàq ko sa xaj bu leen nangu benn yoon keneen di ñëw fii nii den imposer quoi que ce soit nekk si dëkk parce que dangeen am ay këyit yu leer nañ Cheikh Issa nag ku mu jox këyit képp kuy mbuur waa ah, képp kuy mbuur waa ah, Cheikh Issa jox la këyit wala nga jënd këyit si Cheikh Issa mooy la terrain bi yàq moom fa xam xamal ni que këyit yu bon la la jox da ngaa yàq sa xaalis ñu fi nekk ñii ñoom ñoom ay këyit yu baax ñoom ñoo fi dëkk ñoom ñoom terrain yi képp ku jënd feneen terrain yaa xam yàq Cheikh Issa après fu ngeen jëm mais du fa léegi nag léegi nag tey benn acte nañuy posé tey gis ngeen population bi ni ñu engagé wo takk seen brassard rouge parce que dañoo mer nit ñi nit ñi lu ñu lekk ak lu ñu naan ak lu ñu fajoo na nañu tal taluñu ay yeneen affaire dama ne suñu toogee fii nii deux jours trois jours te gis gisaat fi ay nit di fi ñëwaat dinañ passer a la visite supérieure mhm. moom mooy la nag mooy organiser une grande marche jëmale préfecture te préfet dinañu dinañu recevoir inshallah depuis 2010 manque dëkk bi ñu may ñu suñu kër yi Ablaye Wade nu ko may nii sa mayuñu ko nii Paul mayu nu ko Ablaye Wade nu ko may jiiti fekk nanu fi jaani fekk nanu fi man mii nga xamante ne sax néegu doole ñun ay néegu doole lanu man maa amul doom sax ñu bëgg a nangu sama kër te sama kër mooy sama doom Cheikh Issa na xool yàlla na xool digganteem ak démb ba muy doog a ñëw ci dëkk bi sama kër bàyyi la njëkk a ñëw kër Sidi Ndiaye fu mu taxaw ma taxaw fa ak moom kon bu ñuy nangu nanu xool kër ñu nangu te dama fay bor na cinquante mille ndax bañ ko ma yab damay doole di jaay ay darab di war di wayaan ca coronavirus ba laa demoon dem ca corona jamono coronavirus ba foofa laa demoon jaay jëndam yu fay bor na fukki junni damay laaj ndax loolu Sénégal pourquoi ça monsieur le ñu ngi lay woo premier ministre ñu ngi la justice ñu ngi lay woo képp ku nekk citoyen ci dëkk bi ñu ngi lay woo pourquoi ça c'est pas de ici pour ñu nangu sama kër